n'existe pas ou s'il échoue, mais on tire les conséquences. Le, le modèle que nous avons déjà est suffisamment démocratique. Et encore que, xam nga Sénégal Babacar da ngeen gaa ñi dañuy tricher lu bëri mais duñu wax lu bëri duñu wax lu bëri li am barke Demba Ndiaye Sarkozy quest lan la deful ci France condamné wuñ ko est que dégg nga ñi yuuxu Sarkozy lan la def devait ma battre pour que mu wane que il qu'il est blanc comme neige. ñoom la ñuy wax euh, que seen justice. Euh, dafa suffisamment indépendante. attends pour que eh, euh, ñu mën le débat sur l'indépendance et sur l'autonomie de la justice continue de se poser en France. dans tous les pays du monde le débat sur la justice est posé mais cela ne veut dire que ceux qui le posent ñu koy ils sont dans une position de faiblesse en France may fàttali encore parce que fàttali ñoom dañu si la plupart dañuy dem ci député français yi di dem ci ay ay nit yu nekk bitim réew ay dem ci ay chancellerie foog ne mën na légitimer leur position en France Dominique strauss kan moo ko gënoon jege pouvoir tapas na xale bu jigéen ci hôtel bu nekk Amérique te mu nekkoon le patron du FMI tapas la agul fi Sonko fi ñuy wax ni Sonko àgg na fa moom àggu woon tapas la def tapas boobu indi na ko candidature amul. tap eh, léegi léegi ab Ablaye Sow wax nañ ci sport bi nga xam ne am nga ci mbubb wax ci politique bi nga xam ne yaa ngi ci APR ñu jeexalee nag sa euh, mbubb ministre urbanisme ak coow li ñu gis géejawaay di bërëb boobu ñu naan bande filao fu ñu sanc filao yi euh, ñu nuy séddale ngeen ko euh, démb am na ñu fa demoon am toogaanu ñaxtu maire ba Ahmed dara bokk na ca ña fa ña fa nekkoon euh, coow loolu nu mu nu mu demee ñu nuy séddale ngeen sampi ngeen buddi ngeen filao yi séddale pàkk ya waaw mais xam nga loolu déglu ma li Ahmed wax mais bande filao moom ba bàyyi woon ko ni meloon moo doon nekk acte de non gestion parce que demoon na ba filao amatul moo am occupation irrégulière mbir mi xaw a jaxasoo ab nguur nag bu doo fekk affaire bi di jaxasoo nga koy seetaan muy gën a jaxasoo moo tax ñu jël defal PUD bi en en juin 2021 li li des nag maintenant li président di wax tous les jours mooy d'abord même bu ñu defee loolu nañu jiital askan bi fa fu ñu loolu. waaw loolu tamit bu fekkee am na lu ci sooxee war nañ ko mën a xoolaat ba waxtaan ak askan wi ba ñëpp déggoo ci loolu. mais lu des. Ahmed Aidara Ahmed Aidara xam na ni maa ci rajo lay wax xam na ni wax nañ ci maak moom ci lu bari te avant muy nekk sax maire. donc. moom nee na yëgul ci dara ah, gouverneur yëgul ko dara. non parfois aussi nit ñi dañuy def posture politique yaakaar ni bon comme que ci euh, élection lañ jógee ko ci nekk war na mën a soob tuuti pour mën a positionner mais loolu buñ buñ bu mënta nekk. kon xam na xam na lu ñu jot a def yëpp yéeg na ko. amul lu ko ci réer te rajo lay wax ak télé. ko nekk nag day bëgg lu nga xam ne day xëcc c'est le moment mais c'est pas le plus important le plus important mooy ñu taf ba nga xam ni liñ fay def yëpp mu nekk intérêt population. te loolu te loolu xam nga séddale terrain man du ma séddale terrain. Hmm. dama ne wax mooy li ci président santaane ci loolu lépp lañ ciy def nañ ko def dans en adéquation avec les populations et dans l'intérêt des populations ci te lañ taxaw. jërëjëf Ablaye Sow ministre urbanisme. waaw mbir mi vice président gis nga loolu mooy RFM matin ñu lay gërëm bu baax ci teewaay bi nekk itam vice président ci fédération Sénégal bu football jërëjëf Alimou jërëjëf Soxna Naata. Vous avez besoin de caution sur des marchés publics ou privés? Adressez-vous à la SONAC. SA vous accompagne dans l'obtention et la réalisation de tous vos contrats en délivrant tout type de garantie. Caution de soumission, caution d'avance de démarrage, caution de bonne exécution.

RFM matin mbokk yi gannaaw ba 8h jotee El Hadj Sane Gueye agsi na ngir yaatal xabaar yi ci wolof salaamaaleykum El Hadj. waaleykum salaam Hadj Babacar ñu ngi lay ziar di ziar ñëpp ñuy jógandoo ak RFM di leen ñaanal jàmm di sàkku ñaan ci ñëpp. xibaar yi ak uh, wàllu yoon diggante Adji Sarr Ousmane Sonko njiital Pastef laaj bi di ndax dina teew ëllëg uh, ci bëccëgu àtte gi tribunal am Ndakaaru uh, lu ci mun di am dinañu ànd ca kanam tuuti ak Lamine Ba ca Ziguinchor ndax xool ndax moom njiital Pastef Ousmane Sonko ma nga fa ba jamono yi ñu wax a génn wala euh, mu ngi ndakaaru ñaari député yu pur Massata Samb Mamadou Niang ñoom it laaj bi di ndax nañ mën a dellu ci seen ak njaboot euh, tey jii la cour d'appel di ci àddu ndax dañuy wéy ci kaso ba mu déet seeni avocat sàkkul leen euh, wàllu moom sa bopp ci nëggandiku di liberté provisoire tontu bi tey jii ci bëccëgu altine ji géejawaay bu mu kuréel gii di aar suñu littoral ñooy sàkkuñu ñu siiwal ca kaw liste ñi nga xamante ni ñoo am ca téeméer ak juróom fukki hectares yu nu ne dañ ko faa séddoo saax saaxi ci bande filao jamono yu maire bi mu amet Ahmed Aïdara leeral ni amul benn xibaar ci saax-saaxee googe la mu indi ne leeral rek mooy am na fanweer ci ay parcelles yu nu ko dëgtaloon mu daal di euh, lànk bu tëdd ci suuf ñeneen ñu lànkal euh, xalaatam euh, docteur Malick Diop député ci assemblée nationale ci wàllu liaas bi la mu gisoon mooy lii di caution bi ñu koy dem di teg yi ca kees yi dépôt consignation xalaat la bu ñi nga xamante ni ñooy association bailleurs du Sénégal Euh, daal di dàq ndax gisuñu ne euh, dina doon euh, saafara buy indi tan ci mbir yi waaye du def lu may gën ko jafeel ci technique bi Abdoulaye Diop. Assane Gueye ngeen jëf ci ànd beeg RFM ñu ngi ndakaaru Médina rue 15 angle corniche immeuble El Hadj Elimandou ñu wutali euh, Casamance Ziguinchor ak Lamine Ba maa ngi lay ziar Lamine. ni ñu ko waxee ëllëg ci talaata ji la àtte bu Ousmane Sonko Adji saar ginnaaw bi nu ko dàqee ay bés bi nu génn laaj bi jamono yi mooy ndax Ousmane Sonko dina wuy si am déet ndax mënees na am xibaar ci mu ngi am déet jamono yi. ba démb euh, Hadj Assane euh, Ousmane Sonko mi ngi fi woon euh, xëy na sax jamono ji mi ngi fi ba léegi donte sax ne mbir mi xaw na jafe tuuti ci li jëm ci wàllu recoupement information boobu ndaxte xam nga kër Ousmane Sonko daanaka ndaw yee ko ko barricade semaine dernière ba léegi daanaka ngir mën a ci këram. Euh, daanaka lu mën lu lu jafe la euh, moo tax euh, mën a xamee li nga xam ne moo di ay mouvement Ousmane Sonko nekkul lu yomb waaye nag li ñu mën a wax mooy démb bi bi démb bi ngi woon fii ndax am dafa ji Dakar am déet dana dem Dakar ci bëccëg gi am déet dinañ ko topp incha ci kanam waaye nag li mën a li mën ci am mooy li ñu mën a jàpp mooy ndaw yi nga xam ne ñoo wër këram bañ ko fa yegg si maanaam tekk deer yi ngir jël ci ko dañoo gën a yokk li nga xam ne moo di Euh, li nga xam ne moo di barricade yi nee nañ dañuy yokk kaaraange nga xam ne nag moom la ñu jagleel kii di Ousmane Sonko bañ euh, ku ko jël fi fii euh, rawatina si li nga xam ne mooy tàkk der yi waaye nag lii xibaar bi wañu ne Ousmane Sonko dana dem Dakar am géej ci bëccëg gi ak li mën ci am xaasi nañ ko topp te bu fekkee ne donc def na mouvement vers Dakar tamit incha allah suñu auditeurs nañ ko yéeg incha allah Lamine ñu lay wéy di gërëm ci liggéey bi am solo lool foofu ca Ziguinchor gërëm it euh, Mouhamed Diop mi ñëw jàpp si ci liggéey bi leneen ci xibaar euh, wàllu politique ak yoon euh, ñeel ñaari député yi di yu parti pur seeni avocat ñoo leen sàkkul demande liberté provisoire tey nag ñuy war a xaar ëtt bi joxe ci ab tontoom euh, ndax da leen koy nangulam déet li ci kanam rawuti gët jàpp leen rek ni euh, la leen euh, jural téegi boobaak léegi yooyu ñaari député mooy réeroo ak agressé guñ leen toppee ci seen naatango soxna Ami Ndiaye ñi bi cour d'appelu Ndakaaru nag altine tey jii kon la war a joxe délibéréem ci boobu liberté provisoire ñu leen sàkkul fàttali ne ci sumb bu njëkk bi daan bi tegu seen ndodd mooy juróom-benn weeri kaso ak alamaanu ñaar fukki junni ci wet genn gi wet ga ca des juróomi million ci wàllu dommage ak ndax ay gaañu gaañu ak menace de mort jëm ci ni nu ko waxee parlementaire bi di soxna Ami Ndiaye ñibbi ba tey ci xibaaru suba seeg RFM ñi bokk ci kuréel gii di aar sunu littoral ñoom la ñu bëgg mooy ñu siiwal képp koo xamante ni am nga ci téeméer ak juróom fukki parcelle yow nu déclassifié euh, mu tukkee ci ndogalu njiitu réew mi atum 2021 ak léegi ñeel bande littoral bu Géejawaay la ñu bëgg kon ci euh, njiitu réew mi ci wet geneen gi mooy mu niilal njoxe moome Euh, ñeel euh, lii di euh, suuf si ci ci mel ni préfet ki procureur ay ñu siiw ak ñeneen kuréel aar sunu littoral di sàkku àtteb njiitu réew mi président Sall Salamata Ousmane Diallo. ñi daal di gën a taxaw di dëggal seen tuuma jëmale ko ci ay autorité wala ay star yu ñu jàpp ni dañoo daal di am ci cent yi nga xam ni dañ leen daggal ci bande littorale bi Serigne Gueye nekk membre ci collectif aar sunu littoral di wax ni ñooñu nga xam ni jot nañ leen a jox ci suuf si dañu ko daal di dindi ba mu set. mais noonu la mën a seetalee ñun waa Géejawaay ay nit yu tekkul dara Sénégal nekk ci régime bi ndax a jël suñu suuf séddoo impôts domaine waa CARES heure bu suuf amee Sénégal fépp fu ñu koy laalee ñoom dañu war a sédd mais loolu fa lañ ko teg président Macky Sall na jël ay matuwaayam pour annuler toutes les attributions de terrain fii si biir littoral Guédiawaye. bu ñu sukkandikoo ci Pape Maïssa Gueye di yeewoo ci biir Guédiawaye ak Mbacké Gueye nekk conseil municipal ci mairie du wax ni faaw rek ñu daal di fësal liste wane ñi nga xam ni ñoom ñoo jot a am ci suuf si la. bu ñu ko politiqué nañu génne liste bénéficiaires yi. bu ñu xam ku nekk kañ ka ci am noo ci amee foo ci amee ku la ci jox. je tout ce que nous a attribué tout moo fi am am fi ay loo ci nan lañ ko amee membre yi nekk ci aar sunu littoral di daal naqaru tekkaaral gi nga xamante si ni yeneen maire ci yeneen gox yi daal dinañu koo tekkaaral ci bileeg mbir te boobee ba tey yooyu ñu ci yàbbi avant maire di wax dañuy def benn appel li mu def en tant que maire de la ville moom la maire yëpp war a def commençant par Aminata Kanté bu Sam Notaire Khadija Mayekor bu Golf Sud ak Racine Talla ak Mor Waré parce ñoom di indi saafara ci seen jafe-jafe bii. président Macky Sall na jël ay matuwaayam ndax nag li am ngor. lu ko raw mun na am géejawaay. Salamata Ousmane Diallo géejawaay ngir rajo Futurs Médias. jërëjëf Salamata maire bu géejawaay Ahmed Aïdara moom benn la mu lu mooy ñi teewal état foofe ca ville géejawaay bu euh, ko ci mel ni préfet gouverneur mu ne dañuy faral di jëli dogal ñeel boobu bond di toxal géejawaay ci du nu yëg lu jëmee ci moom euh, bi ci topp it euh, tuumaal na ca ci ceddoo mi ay administrateur civil ay politique ak ñeneen di leeral it moom Ahmed Aïdara maire bu géejawaay ni fanweeri parcelle yu nu ko baaxee woon i moom da ko daal di gàntu déglu ko ay leeralam monsieur le maire bu Guédiawaye Ahmed ko la mairie jox ko le préfet jox ko jox ko jox ko à qui de droit ko loolu yëpp dara amu ci <coughs> notification ak attribution yëpp maire war nekk ci kanam et la commission dara amu ci et nous sommes la seule mairie wala le seul maire boo xam ne ay attribution moom nit ñi ñoo koy gisandoo ville de Guédiawaye la jàpp suufam di ko caxat-caxatee te le maire n'est au courant de rien te le maire nan la war a mën a nekkee au courant de dara mooy gouverneur di ko informer wala le représentant de l'état nekk fii di la préfet di ko informer mais bande bi amul dara loo xamante ne nii ville bu Guédiawaye affaire bi ma ñëwee ak léegi boobu boole nañ ko remarque bi ñu def mooy bande bi ñoom jël nañ ko di ko séddale ñu leen neex boobee benn ñaar dafa

Touba lu jëm ci coowal bande euh, bu euh, waay googe moom jëwriñ ji dafa jàpp ne ñàkk euh, lotissé gi sax moo doon safaan ndax occupation illégale yi fa woon terewul nag nangu na moom jëwriñ ji ne waxtaan mënut a ñàkk ngir lépp lu jëm ci wàllu njariñ ak askan wi ak it suuf soosee kon waxtaan ca du lu mën a ñàkk waaye jàpp na ni daal lotissé gi mooy li gën moom monsieur le ministre Ablaye Sow du ñàkk ñu ànd ak moom ci yeneen jotaayu xibaar ci français wolof ci bëccëg incha allah dañuy des ak wàllu dëkkwaay ak coowal luyaas bi Sénégal borom kër yi ñi nga xamante ni ñooy luyee ñoom dañoo àndul ci xalaat bi génn ayu bés bi tukkee ci député di honorable docteur Malick Diop jëm ci caution bi léegi ñu koy dem di déposer ji ca caisse de dépôt et de consignation moom jàpp nañ loolu dina bokk ci liy néewal jafe-jafe yi ak réeroo diggante euh, borom kër yi ak ñii luyee waaye borom kër yi ñoom ne déet danoo gis ne saafara buy jur jàngoro lay doon seen jiital kuréel Ibrahima Ndiaye ñu teewlu ko Ibrahima Diamé wax dëgg si yàlla rek xanaa gën a yokk jaaxle rek borom kër yi ndax déjà wañu nañu location bi yàggul wàññi nañu quinze pour cent ndax ci dolli location bi léegi booy dugg ci kër avance bi benn mois ngay dugal la ci des nga fay ndànk-ndànk ci diiru at douze mois donc loolu yëpp am na bon en même temps bailleurs yi defaluñu leen benn faveur joxul defaluñu benn contrepartie loolu yëpp doyul ñu ne léegi même caution bi nga xam ne as bi nga doon am pour garantir maanaam parce que garantie la boo xam muy garantir maanaam appartement bi ngay joxe wala kër bi ngay joxe caution boobu ñuy versé dañu naan xaalis locataire la mais du xaalis locataire xaalis borom kër gi la puisque bu nekkoon bu local amuloon wala bu appartement amuloon wala bu kër amuloon doo joxe garantie donc garantie boo a fay boru ndox loxo bailleurs yi naan dañ koy déposer caisse de dépôt et de consignation mooy CDC mais bu ëllëgee déjà day indi problème parce que foog ñu xam réalité bi ci terrain bi réalité bi ci terrain mooy locataire pour la plupart seen caution dañ koy tëdd ba mu jeex tàkk tàkk ñoom bu ñu bëggee dimbali locataire location lu tax affaire yi métteeg yooyu yëpp mooy que parce que euh, euh, euh, dëkkuwaay amul état moo waroon tabax ay dëkkuwaay tabax ay dëkkuwaay état war na fexe tabax ay ay logements sociaux logements sociaux amul ba tey ci xibaaru suba seeg RFM ñu waxtaanee euh, nawet bi ak mbay mi baykat yi nga xamante ni ñu ngi daal di fësal seen ak njaaxleeg euh, tardé gi ñu ne dañ ko gis ci wàllu euh, yegsim intrant di lépp lu mbay mi àndal muy wàllu njiw meeg yeneen muy wàllu kon njiw ak wàllu engrais ak yeneen gis nañ ne daal nguur gi bëgg noon baral jéego yi mu gën ci ñoom ndax ñu bañ a raté xaaj bu njëkk bi ñeel hivernage ab ren bi gëstu bu Ibrahima Jàmme suba wala gannaaw suba kenn xamul kañ lay leer moo ne nawet bi li ci des euh, soreetul waaye ba néganile béykat yi nee nañ gisagunu leen lu nu roog waajal nawet gisuñu benn mise en place euh, Bassirou Ba moom mooy njiital mouvement bi ñuy duppee aar sunu moomeel moom nag nee nañ ci njàqare dëgg la ñu nekk. situation bi de doy na waar lool ci képp koo xam ne béykat nga nga toog ba jamono bi ñuy wax ak yow waxuma la ne jiw yi nga xam ne état daf ko war a joxe waaye seko yi nga xam ne moom la ñu war a jëli jiw ñun. en tant que ay ak opérateurs yi nga xam ne ñoo ñu war a jox jiw état jaarale ko ci ñoom ba fii ñuy waxee ak yow ñun dégguñu kenn koo xam ne gis na not buy wane ne notifié nañ diw ak diw ak diw pour ñu war a joxe jiw. boo demee itam ci mbootaay bi ëmb béykatu Saloum daanaka njaqare ji benn la bu ñu sukkandikoo ci secretaire général bi di Cheikh Tidiane Cissé moom jàpp na ne jamono ji lañ ko war a def wala bokk boo muyulee taw bi dana leen bett. Euh, gerte ñëwul engrais ñëwul euh, matériel agricole ñëwul euh, phosphatage bi aussi ñëwul donc yooyu yëpp soo leen boolee da nga maam dafa nekk lu nga xam ne vraiment dafay jël mise en place constituer ay commission ba pare war koy distribuer donc yooyu yëpp dafay jël temps te mu nekk nii vraiment en l' espace de dix jours yaakaar nañ ay taw te gars yi météo nee nañ bu tawee rek automatiquement bon mën nañuy ji donc yooyu yëpp dafay laaj vraiment ñu taxaw ci taxaw bu gën a gaaw. en tout cas njeexital bi situation bi ni mel nara am président mouvement aar sunu moomel jàpp na ne umpulu kenn campagne bu bon rek la nara andi. donc dafay indi nawet bu gàccax ci baykat bi donc da ngay teel ji parce que da ngay teel a am sa jiw teel a dem ji ju ko mu dekk nji bu mag nga am engrais bu doy lu yàlla indi nga xam ne lii la indi waaye boo ci jotul yéex a jot wax dëgg yàlla li mën a indi mooy nawet bu fànq ci baykat bi. lan moo waral yëf yi nara tardé ni le nag loolee kii di kon directeur de l' agriculture daal di koy woo waaye mu xamal ñu ne bu sañoon du ci wax ñu fàttali ne nag waa météo waxoon nañ ne nawetu ren bi de tem mu teel a tàmbali. sport geeg Malal Junior Diagne maa ngi lay nuyu Malal. maa ngi laa fay Ajasan. bisimilah. nu dooree ko ak ndorteel bu euh, xaw a doy ci équipe bu Sénégal ci coupe du monde U20 démb dañ leen a daan seen diggante ak waa Japon benn bal ci dara donte si ñaareelu pàcc jongante bi xale yi jéem nañu nu nekk nañu ko wante sapone yi euh, mooy ci seen bit boobule ba mën a am ndam li des ci jongante bi naka la ko Sénégal war a euh, defee ak naka la ñu waree taxaw ngir fexe ni ba mu qualification jëm ci ñaareelu pàcc googu la jongante Malick Daaf mooy kii tàggat ak Sénégal yi nee na dëgg la ñàkk nanu waaye ñàkki dafa teel

neen jongante gi àllarba lañu ko jàpp ci juróom benn waxtu ci ngoon euh, Sénégal ak Israël ñoo ca war a euh, jongante si poulu Sénégal bi euh, Colombie moom moo nekk ci kaw moom ak équipe bu Japon Sénégal ak Israël ñoo nekk ci suuf jongante boobu nag mën nañ ko seetaan ci télévision Futur Média bu sàkkusaan tegalee fanweeri simili ba noppi déglu ko ci rajo Futur Média ci lu dul dagg léeg-léeg itam muy gaynde Sénégal U17 yi tax ñu dalal leen démb ca Palais ba nag euh, Macky Sall njiitu réew mi daal dina fa woon euh, woo lépp luy kilifa ak lépp lu nu war a def ngir daal di delloo njukkal doomu réew mu yëkkati raaya réewam ca kaw muy musique principal forces armées woo waa ale woo seeni waajur woo kilifa réew mi ngir ñu teewee mm, delloo njukkal ga mu doon delloo njukkal ba noppi mu yëkkati koppar yu takku mu toll ci fukki million mu jox ko jour bu ne am fukki million ba noppi itam ñeneen doon tàggat mu compal leen comp yu duun ngir ñu mën a waajal li seen kanam Youssouf Bodian El Ghazouni Fatima moo njëkk dugal pour Maroc 49 minutes de jeu ci corner bu bàyyeekoo ci gauche bi joueuse Maroc bi daal di profito ci ab cafouillage défense su Sénégal ngir daal di pousse bal bi nekkoon ci ligne de bu Sénégal ci ginnaaw sa mu égalisé 75e minute ak kii di Absatou Malado Diallo moom mi dugaloon sax ci match bu njëkk bi bii bi may ndam Sénégal. ci kanam njiitu réew mi ak seeni waajur gaynde yu daw yi daal di wëy hymne national bi comme si dañuy waaj a beneen match njiitu réew mi daal di sargal champion d'Afrique yi mu doon fierté ci ñoom suñu sukkandikoo ci capitaine bi di Amara Diouf. waaw kontaan nañ trop si lu ñu recevoir si fii si palais de la République euh, di wax ni yombul ñu recevoir euh, boo gañewul liñ la si recevoir kontaan nañ trop si ñu def ko parce que euh, sunu mag yëpp jaar nañ fi nga xam ni euh, waroon nañ ko mën a am te yàlla def nañ ñu am ko. waaw personnellement sa performance yow nan nga ko jugé yow. waaw kontaan naa trop si samay performance mais lépp euh, samay àndandoo ñoo ma poussé yokku ma doole pour ma mën a am performance individuelle bu champion d'Afrique Yaya Jammeh jàpp ni lu ñu mérité la ndax liggéey bi ñu def booba léegi. gëmoon nañ suñu bopp nañ ko moom gëmoon nañ suñu bopp trop même entraînement lay commencé avant ñu dem match waaw gëmoon nañ si kontaan trop li moom euh, yomb quoi nga ñëw sa président recevoir la ba xamante ne musul am si yow. waaw li ñu yëg suñu yaram ñun rek ñoo ko xam waaw ñoo ngi remercier yëpp ñu suñu parents ñëpp waaw kontaan nañ trop si yéen si seen tamit di ñu taxaw bu baax kontaan si incha allah ngeen war a dem euh, coupe du monde euh, nan ngeen di envisager coupe du monde non dañ koy jëli incha allah comme dab rek bu ñu demee comme ni ñu def kan dañuy def bu ñu jàpp mu wàccee la rek comme dab Serigne Diouf nekk gardien bi gën a ràññeeku ci compétition bi moom it mbégte la am ci ndam bi ñu. liggéey nañ lu bëri tubaab jalaaw pour lii nii parce man fu may dem rek damay xool loo xam ne pour góol la man ma visé ko te bu ma doon dem compétition dama ne dama bëgg a jël meilleur gardien ma dem yàlla may moo. champion d'Afrique yi nañ wéyal liggéey bi ci seeni académie ak seeni club laata kon ñuy dem ci coupe du monde bi ñu jàpp ci weeru novembre bi di ca Rwanda lay xewee ca Kigali demb sénégalais yi nekk ci AS Douane dana wane xarkanam bu ñëpp rafet ndax dañoo duma ci quart de finale bi ci lu amul genn layam layami équipe bu euh, Ferroviaro euh, juróom-ñeent fukk ak ñett la sénégalais am ci poñ ñooñee am juróom fukk ak ñett poñ ñaar fekk poñ yu leen texali Sénégal daal di kon qualifié noonu ci demi-finale war a dajanteeg euh, geneen équipe bu ñëpp bàyyi xel ci continent bi muy Petro Luanda ci geneen demi-finale gi Stade Malien moo cay jongante ak waa Al Ahli nu jeexal ak waa lu bëre olympique ci championnat dafa ñu doon a xewal ca réew Tunisie ak euh, beach wrestling euh, Sénégal am na ca médaille ndax bu ñu xoolee ci compétition par équipe bi moo jël p ndax am na ñetti médaille ci or ñetti médaille ci euh, wàllu argent ak ñeenti médaille ci wàllu bronze xale sénégalais yi ak nañu àndaloon ci wàllu CNG ñu ngi leen di xaaran yi tey ji ci bu 10 heures tegalee ci bu 11 heures jotee ci aéroport euh, Blaise Diagne bu jas ngeen ñibbisi indaale euh, seeni médaille li ma jaaxale Alaaji San léegi mooy ku am ndam mhm. dem pale jël ay millions <laughs> waaw léegi ñaara mën a ne <laughs> def lu rëy am ñaara mën a ne nun ñu fexe nekk sëriñu équipe nationale yi pour encaisser ci xaalis bi ah mbaa nu créé équipe nationale wax dem compétition gagné maki recevoir équipe nationale. wax ah, classement bi du yomb de Sénégal ñëppay wax. alaaj bu ñu demee du ah, jàmbaar di dinañ ci génn de pourtant <laughs> man ak yow rek ñu dem ak Babacar Fall. <laughs> bàyyi nga egg président ne la kenn du euh, fay wax bàyyi jëf acca dellu leen ngeen jëfi. ah mais wax jëf la di pourtant li ñuy def nii jëf la di alaaj. jërëjëf Malal. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. jërëjëf euh, Malal li moo tax Oustaz Alioune Sall di ñaan Sénégalais yi ñu am ci lu bari xaalis boobu sunuy poos ndax xel yi gën a dal chronique culture bi ñu ànd ak Fama Dione jërë ngeen jëf mbokk yi dañuy tàmbale ak wàllum graffiti maison de la culture du Tasek dalal na cérémonie lancement festival bu njëkk bu njagleel wàllum graffiti fii ci ndakaaru ki ko taxawal di docteur di artiste graffeur nee na nag li mu bëgg mooy taxawal ab mur mur woo xamante ne mooy gën a gudd ci àdduna wërngal këpp jagleel ko wàllum graffiti mu war a mesurer ñaari kilomètre ak lu topp diggante gaar bu ndakaaru ak gaar bu kolobaan sunu yéenee ren bu gën a ci àdduna gi boo xam ne day def ñaari kilomètres sam la six cent mètres de guddaay ñu ci jokkoo ñu ci ñu ci nekk nag en partenariat ak waa SETER ñi nga xam ne ñoom ñooy gérer patrimoine bi mu war a jóge gare de Dakar ba gare de Colobane mu def deux mille six cent mètres euh, loolu ñu bëgg ko tàmbali fii ak lundi jëm ba mois de juin chaque année aussi day am thème thème bi de ànd ak benn kilifa goo xam ne euh, jàpp nañ ne am na lu marqué ci dund gi ñun nag ren dañoo jël euh, ku mel ni Mamadou Dia comme parrain spirituel de ce projet. mu nekkoon docteur artiste graffeur fële ca Kër Simbara nekk ca Fandène ci Thiès ay doomi Amérique ñoo ñëw nemmeeku si aada ak cosaanu Sénégal seen programme nag bokk na ci dem ci ay centre culturel ni ki ay musée ak yeneen ñu ànd ceeg Cheikh Anta ñii di ay américain ñoom ñii de dañuy yëngu lu jëm ci seen wàllu xeetu football boobe ñuy def foofee ci États-Unis ay ndaw lañu di ay noir américain dañoo dikk fii ci Sénégal rawatina fii ci wàllu Thiès kër Simbara nekk ci commune Fandène nee nañ dañoo bëgg xool si fii seen maam yi jóge ñu mën fee tibb. lépp loo xamante ne jëm na seen cosaan ngir ñu man koo gëstu Samba Dieng mi moom mooy directeur exécutif bu bureau chargé affaires étrangères fële ci université bu Louisiane moo ànd ak ñoom fii ci Sénégal. Ah, dama ñëw fii ak une équipe de football américaine léegi dañoo ñëw pour jéem a éduquer suñu joueurs yi ci Sénégal ah, ci culture Sénégal ci suñuy aada ak suñuy cosaan pour ñu gën a xam lien yi ñuy am entre entre Sénégal ak Louisiane léegi du Mohamed Ndiaye ngeen jëf dialogue di waxtaan wi njiit mi Macky Sall woote l'observateur ne nañu njaw desandi na ci aw xambin wu rëy pil yéene kay bi talaata fanweeri fan ci weeru mai ci la ñu a tàmbali waxtaan yi waaye ñi ca a bokk ñenn ci ñoom di waa Parti démocratique Sénégal seen bëgg-bëgg bi ñu bëgg a waxtaane ci waxtaanoo moo di révision bu procès bu seen waa di Karim ginnaaw bi ñu gàntalee waxi amnistie loolee l'observateur mi laaj ndax ndax waa parti Sénégal bu ñu tegee condition révision procès bu Karim bi président Macky mën na leen ko nangul mën na leen ko bañal bu leen ko nangulee Babacar Fall gis ne bu boobaa juróom-ñeenti weer yi dox suñu digganteeg wote présidentielle dina gàtt gàtt goog bu ñu fi bëggee àtte Karim bu nuppi bëgg fee organiser ay présidentielle du mën a nekk ba tax reporter élection présidentielle yi lu jar bàyyi xel la Moundiaye Cissé directeur dialogue bi journal Tribune mi ngi ñuy fàttali ne fanweeri fan ci yoru mee lay tàmbali dialogue dil la ko yéenekaay bi tuddee ba di ñu xamalit ne ñu bari ci ñu fare ci opposition bi lànk nañu ne duñu dem ca dialogue ba Samuel Sarr ak i gaayam di LSS libéralisme social sénégalais lu mandat nee nañu ñoom nee nañ dem bokki ca dialogue ba président de la république Macky ndax dafay bokk ci wote yi am déet réew mi bind na ne njiit réew mi ma moo waral mu dem ca Paris la France wuti ji fa ab professeur de droit public ñu naan ko Guillaume Drago ngir taataan xalaatam bés bi le jour nañu Macky Sall lay dooleel tribune nañu Macky wuti na ab juriste français ngir forcer nit ñi troisième candidature ak lu ko waa mën di wax la Sénégal mi ngi ñuy wax ne kii di Cheikh Tidiane Gadio wax na ci mbirum troisième candidature bu Macky Sall Cheikh Tidiane Gadio président Macky Sall bi coowal viol li ko Adji Sarr di tuumal li mu teg ni ay condition ngir dem tribunal Le Quotidien nee nañu état bu Sénégal nee na Ousmane Sonko na ko tàyyi ndax dañu ci def benn journal Le Quotidien mi ñu wax ne Ousmane Sonko jot na convocation depuis le 11 nee nañu it président parti Pastef teg ni ay condition mooy force de défense et de sécurité ya toogaanu buntu këram ci cité kër góor gi ñu jëlee leen fa boole cekkit caaxaan ak ci manipulation ci la nekk ndax ku ñu convoqué ci kanamu chambre criminelle amul benn condition booy teg ministre du commerce bi dolli ci ne Ousmane Sonko bu nangoo dem wuy ju yoon nit ku normal bu boobaa du gis benn force de défense et de sécurité waaye su bëggee turbale ordre public bi état bi du ko nangu ay kàddu yu mu yëkkati moom Abdou Karim keroog àjjuma ci ndaje mu task force républicain doon def ca Grand Yoff ñu romb Grand Yoff de wax jur na coow lu bari ci réew mi direct news nañu Idrissa Seck mu mu tudd ca wax ji Idi tontu na ko ba weddi la ko waxal Idrissa waxul dëgg dafay kàcc keneen ku mu waxal ba moo di soxna si di na xam naa ne Ousmane Sonko dafay na ne dafay kàcc te xam na ne man xam naa ne dafay kàcc te terewul muy kàcc ci doxalin Ousmane Sonko yéenekaay bi nee nañu mooy Ceerno Bokkum moom li mu gis moo di Sonko daanooti na ne fañ ko doon xaar ak fa mu génn du benn beneen bu yéenekaay bu xëy ay nit yu xëy dal ci kaw Ousmane Sonko moom mooy Vox Populi li mu bind moo di Idi ak Thierno Bocoum wulli nañu Ousmane Sonko Ousmane Sonko bu doon ku nekk ci làng la source ne nañu wét na ca lool seul contre tous attem bi war a am suba diggam ak Adji Sarr mu di procès coowal mbës mi ci audience spéciale enquête dina kay nee nañu moom Ousmane Sonko moo ca yore ca gël gu yam mel ne na ko xaw a teggi tànkam ci désobéissance civile gi mu nekk donte nag teg na ay conditions suñu bëggee mu dem tribunal résistance gi mu woote enquête dina kay nee nañu taxul yoon dellu ci ginnaaw ginnaaw loolu nañu wax ci gaynde Sénégal yi woon ci président national Macky Sall dalal na leen démb ca palais ba ba jox leen mbaqus ñoom lionceaux yi ku ci nekk ci ñoom njiit gi ëmb journaliste yu yi mu jiitu ci réew mi prix reporter presse écrite Aïcha Goudiaby bu l'Observateur moo ko jël Aminata boobu RFM gàddu primaire reporter rajo yokk leen rajo yi ñu des ak l'observateur xooli la xew ci guddiri ga ca Tamba ubbil yéene kay bi benn waay moo fa doon tuumaal jabaram ne jabar ji dafay njaaloo tax mu jàpp jabar ji di ko yedd ak di ko waar ba jàpp ñu lu bu baax raaye yooyu nga xamante ni Aïcha Goudiaby bu observateur ak soxna Aminata Ba RFM daal nañ ko gàddul groupe Futur Média di sac bu yaa ci ñun euh, vraiment yàlla na doon seen njiglaay xibaar yi la woon ak RFM diggante aji sax Ousmane Sonko ëllëg ci talaate ji la àtte bi laaj bi wéy di doon ndax Ousmane Sonko dina ca teew am déet laaj beneen ndax Massata Samb du Niang di ay député bokk ci parti PUR nañ mën a dellu tey seeni njaboot am déet euh, ndax cour d'appel bi war a àddu joxe dogalam ci euh, lii di ay avocat càkkutéef gu ñu defoon jëm ci ñu may leen liberté provisoire gi jëwaay kuréel gii di aar sunu littoral ñooy sàkku ñu siiwal liste euh, ñi fa amee ñëpp ay terrain ca bande filao ga Ablaye Diop mais am yaakaar ni bokkoo ca <laughs> yuuxu dina jibe fu ko foogewul waaye ñoom daal nee nañ na jib na na biir na siiw Ablaye Ahmed Aïdara meeru Guédiawaye moom ma ngay leeral ne yëgul tinul lu jëm ci saax-saaxee gi nu ñu ko tuddee ñoom ndax du préfet euh, du benn kilifa représentant nguur gi faral di yëglu euh, ci lanu fay doxale mu ne euh, ci weneen wàll moom maire bu Guédiawaye leeral it ay Aïdara fanweeri parcelle yu nu ko dëkkaloon mu daal di ko gantu wàññi itam luyaas beeg li ciy saafara xalaat bi ci docteur Malick Diop assemblée nationale euh, député la fa moom dafa gisoon ni euh, déposé ji caution bi ca caisse de dépôt et consignation dina bokk ci li indi tan ci mbir yi waaye borom kër yi di bàyyi yi ñoom ne ko déet gisuñ ne saafara lay doon wala boog bu ko nekkee bu jur jàngoro lay doon Abdoulaye Diop nekkoon ci technique bi El Hadj Assane ci micro bi digital gi soxna Yacine ñu ngi leen di gërëm mbokk yi di leen jox ndaje incha allah Sonko ma nga fa ba jamono yi ñu wax ak yéen. wala euh, mu ngi ndakaaru ñaari député yu pur Massata Samb Mamadou Niang ñoom it laaj bi di ndax nañ mën a dellu ci seen ak njaboot euh, tey jii la cour d'appel di ci àddu ndax dañuy wéy ci kaso beem mu seeni avocat sàkkul leen euh, wàllu moom sa bopp ci nëggandiku di liberté provisoire tontu bi tey jii ci bëccëgu altine ji géejawaay bu mu kuréel gii di aar suñu littoral ñooy sàkku ñu siiwal ca kaw liste ñi nga xamante ni ñoo am ca téeméer ak juróom fukki hectares yu nu ne dañ ko faa séddoo saax saaxi ci bande filao Euh, jamono yu maire bi Guédiawaye moom Ahmed Aïdara leeral ni amul benn xibaar ci saax saaxee googe la mu indi ne leeral rek mooy am na fanweer ci ay parcelles yu nu ko dëgtaloon mu daal di euh, lànk ba tëdd ci suuf ñeneen ñu lankal euh, xalaatam euh, docteur Malick Diop député ci assemblée nationale ci wàllu liaas bi la mu gisoon mooy lii di caution bi ñu koy dem di teg yi ca dépo yi consignation xalaat la bu ñi nga xamante ni ñooy association bayeeru Sénégal daal di dàq ndax gisuñu ne dina doon saafara buy indi tan ci mbir yi waaye du def lu may gën ko jafeel ci technique bi Abdoulaye Diop. jërë ngeen jëf ci ànd beeg RFM ñu ngi ndakaaru Médina rue 15 angle corniche immeuble El Hadj Elimandou ñu wutali euh, Casamance Ziguinchor ak Lamine Ba maa ngi lay ziar Lamine. naa ni ñu ko waxee ëllëg ci talaata ji la àtte bu Ousmane Sonko Adji saar ginnaaw bi nu ko dàqee ay bés bi ñu génn laaj bi jamono yi mooy ndax usman Sonko dina wuy si am déet ndax mënees na am xibaar ci mu ngi am déet jamono yi. ba démb euh, Haji Assane euh, Ousmane Sonko mi ngi fi woon euh, xëy na sax jamono ji mi ngi fi ba léegi donte sax ne mbir mi xaw na jafe tuuti ci jëm ci wàllu recoupement information boobu ndaxte xam nga kër Ousmane Sonko daanaka ndaw yee dañ ko barricade semaine dernière ba léegi daanaka ngir mën a ci këram. Euh, daanaka lu mën lu lu jafe la euh, moo tax euh, mën a xamee li nga xam ne moo di ay mouvement Ousmane Sonko nekkul lu yomb waaye nag li ñu mën a wax mooy démb bi bi démb bi ngi woon fii ndax am dafa wuyu ji Dakar am déet dana dem Dakar ci bëccëg gi am déet nañ ko topp incha allah ci kanam waaye nag li mën a li mën ci am mooy li ñu mën a jàpp mooy ndaw yi nga xam ne ñoo wër këram bañ ko fa yegg si maanaam tekk deer yi ngir jël ci ko dañoo gën a yokk li nga xam ne moo di Euh, li nga xam ne moo di barricade yi nee nañ dañuy yokk kaaraange ki nga xam ne nag moom la ñu jagleel kii di Ousmane Sonko bañ euh, ku ko jël si fii euh, rawatina si li nga xam ne mooy tàkk del waaye nag lii xibaar bi wañu ne Ousmane Sonko dana dem Dakar am déet ci bëccëg ak li mën ci am xaasi nañ ko topp te bu fekkee ne donc def na mouvement vers Dakar tamit incha allah suñu auditeurs nañ koy yéeg incha allah ñu lay wéy di gërëm ci liggéey bi am solo lool foofu ca Ziguinchor gërëm it euh, Mouhamed Diop mi ñëw jàpp si ci liggéey bi leneen ci xibaar euh, wàllu politique ak yoon euh, ñeel ñaari député yi di yu parti pur seeni avocat ñoo leen sàkkul demande liberté provisoire tey nag ñuy war a xaar ëtt bi joxe ci. ab tontoom euh, ndax da leen koy nangulam déet li ci kanam rawuti gët jàpp leen rek ni euh, la leen euh, jural téegi boobaak léegi yooyu ñaari député mooy réeroo ak agressé guñ leen toppee ci seen naatango soxna Ami Ndiaye ñibbi cour d'appelu Ndakaaru nag altine tey jii kon la war a joxe délibéréem ci boobu liberté provisoire ñu leen sàkkul fàttali ne ci sumb bu njëkk bi daan bi tegu seen ndodd mooy juróom-benn weeri kaso ak alamaanu ñaar fukki junni ci wet genn gi wet ga ca des juróomi million ci wàllu dommage ak ndax ay gaañu gaañu ak menace de mort jëm ci ni nu ko waxee parlementaire bi di soxna Ami Ndiaye ñibbi ba tey ci xibaaru suba seek RFM ñi bokk ci kuréel gii di aar sunu littoral ñoom la ñu bëgg mooy ñu siiwal képp koo xamante ni am nga ci téeméer ak juróom fukki parcelle yow nu déclassifié euh, mu tukkee ci ndogalu njiitu réew mi atum 2021 ak léegi ñeel bande littoral bu Géejawaay la ñu bëgg kon ci euh, njiitu réew mi ci wet geneen gi mooy mu niilal njoxe moome Euh, ñeel euh, lii di euh, suuf si ci ci mel ni préfet ki procureur ay ñu siiw ak ñeneen kuréel aar sunu littoral di sàkku àtteb njiitu réew mi président Sall Salamata Ousmane Diallo. ñi daal di gën a taxaw di dëggal seen tuuma jëmale ko ci ay autorité wala ay star yu ñu jàpp ni dañoo daal di am ci cent cinquante hectares yi nga xam ni dañ leen daggal ci bande littorale bi Serigne Gueye nekk membre ci collectif aar sunu littoral di wax ni ñooñu nga xam ni jot nañ leen a jox ci suuf si dañu ko waay ay nit yu tekkul dara Sénégal nekk si régime bi ndax dañoo jege président rek mën a jël suñu suuf séddoo ko mais fan lañ ko teg mais ba ban décret moo wax ni waa impôt et domaine waa CRES heure bu suuf amee Sénégal fépp fu ñu koy laalee ñoom dañu la war a sédd mais loolu lañ ko teg président Macky Sall na jël ay matuwaayam pour annuler toutes les attributions de terrain fii si biir littoral Guédiawaye. bu ñu sukkandikoo ci Pape Maïssa Guèye di yeewoo ci biir Guédiawaye ak Mbacke Guèye nekk conseil municipal ci mairie de la ville di wax ni faaw rek ñu daal fësal liste bi wane ñi nga xam ni ñoom ñoo jot a am ci suuf si buñ ko politiqué nañu génne liste bénéficiaires yi. bu ñu xam ku nekk kañ ka ci am noo ci amee foo ci amee ku la ci jox. je pense fi am am fi ay loo ci nan lañ ko amee membre yi nekk ci aar sunu littoral di daal naqaru tekkaaral gi nga xamante si ni yeneen maire ci yeneen gox yi daal dinañu koo tekkaaral ci bileeg mbir te boobee ba tey yooyu ñu ci yàbbi avant maire di wax dañuy def benn appel li mu def en tant que de la ville moom la maire yëpp war a def commençant par Aminata Kanté bu Sam Notaire Khadija Mayekor bu Golf Sud ak Racine Talla ak Mor Waré parce que géejawaay ñoo leen daal di indi saafara ci seen jafe-jafe bii. président Macky Sall na jël ay matuwaayam ndax nag li am ngor. lu ko raw mun na am géejawaay. Salamata Ousmane Diallo géejawaay ngir rajo Futurs Médias. jërëjëf Salamata maire bu géejawaay Ahmed Aïdara moom benn la mu lu mooy ñi teewal état foofee ca ville géejawaay bu euh, ko ci mel ni préfet gouverneur mu ne dañuy faral di jëli dogal ñeel boobu bande di toxal géejawaay ci dundu yëglu yëg ci moom euh, bi ci topp it euh, tuumaal na ca ci ceddoo mi ay administrateur civil ay politique ak ñeneen di leeral it moom Ahmed Aïdara maire bu géejawaay ni fanweeri parcelle yu nu ko baaxee woon it moom da koo daal di gàntu déglu ko ay leeralam monsieur le nit ñi dañ naan ñun xamuñ dara ci bande bi nit nit ñi ñàkkee xam dara ci bande bi noonu la maire de la ville ñàkkee xam dara ci bande te gouverneur dañ ko waxoon ne ko nañu jël tous documents ñu jox ko la mairie jox ko le préfet jox ko jox ko jox ko à qui de droit ko loolu yëpp dara amu ci <coughs> notification ak attribution yëpp maire war a nekk ci kanam et la commission dara amu ci et nous sommes la seule mairie wala le seul maire boo xam ne ay attribution moom nit ñi ñoo koy gisandoo ville de Guédiawaye la jàpp suufam di ko caxat-caxatee te le maire n'est au courant de rien te le maire nan la war a mën a nekkee au courant de dara mooy gouverneur di ko informer wala le représentant de l'état nekk fii di la préfet di ko informer mais bande bi amul dara loo xamante nii ville bu Guédiawaye affaire bi ma ñëwee ak léegi boobu boole nañ ko remarque bi ñu def mooy bande bi ñoom jël nañ ko di ko séddale ñu leen neex boobee benn ñaar afam c'est pour la mairie mu ne ma benn la ma ne ko du benn si c'est pour la mairie c'est pour la communauté nous sommes cinq cent mille personnes ñoo yeewoo ci dëkk bande bu toll ngeen jël ko caxat-caxatee ko jox ko ay punkal yi ne ci nguur gi ak ñenn ci opposition bi ak ñenn ci ay soi-disant sta ay population bi ngeen ne da ngeen jël trente parcelles kese jox ko waa Guédiawaye moom daj duñ ko jël si c'est pour la mairie si c'est pour le maire man bu Touba lu jëm ci coowal bande euh, bu euh, géejewaay googe moom jëwriñ ji dafa jàpp ne ñàkk euh, lotissé gi sax moo doon safaan ndax occupation illégale yëfa woon terewul nag nangu na moom jëwriñ ji ne waxtaan mënut a ñàkk ngir lépp lu jëm ci wàllu ñax maa ngi lay nuyu malal maa ngi la fay ajasan bismillah nu dooree ko ak ndorteel bu xaw a doy waar ci équipe bu Sénégal ci coupe du monde u démb dañ leen daan seen diggante ak waa Japon benn bal ci dara doonte ci ñaareelu ñaareelu pàcc jongante bi xale yi jéem nañu nunu ne def nañu ko wante sàppone yi euh, mooy ci seen bit boobile ba mën a am ndam li des nag ci jongante bi naka la ko Sénégal war a euh, ak naka la ñu waree taxaw ngir fexe ni ba mu qualification jëm ci ñaareelu pàcc googu la jongante Malick Daaf mooy kii tàggat gonek Sénégal yi nee na dëgg la ñàkk nañu waaye ñàkki dafa teel

beneen jongante gi àllarba lañu ko jàpp ci juróom benn waxtu ci ngoon euh, Sénégal ak Israël ñoo ca war euh, jongante si poulu Sénégal bi euh, Colombie moom mu nekk ci kaw moom ak équipe bu Japon Sénégal ak Israël ñu nekk ci suuf jongante boobu nag mun nañ ko seetaan ci télévision Futur Média bu sàkkusaan tegalee fanweeri simili ba noppi déglu ko ci rajo Futur Média ci lu dul dagg léeg nitam muy gaynde Sénégal U17 yi tax ñu dalal leen démb ca Palais ba gannaaw nag euh, Macky Sall njiitu réew mi daal dina fa woon euh, woo lépp luy kilifa ak lépp lu nu war a def ngir daal di delloo njukkal doomu réew mu yëkkati raaya réewam ca kaw muy musique principale forces armées woo waa ale Casa woo seeni waajur woo kilifa réew mi ngir ñu teewee mm, delloo njukkal ga mu doon delloo njukkal ba noppi mu yëkkati koppar yu takku mu toll ci fukki million mu jox ko jour bu ne am fukki million ba noppi itam ña leen doon tàggat mu compal leen comp yu duun ngir ñu mën a waajal li ne seen kanam Youssouf El Ghazouni Fatima moo njëkk a dugal pour Maroc 49 minutes de jeu ci corner bu bàyyeekoo ci gauche bi joueuse Maroc bi daal di profito ci ab cafouillage défense su Sénégal ngir daal di pousse bal bi nekkoon ci ligne de but Sénégal ci ginnaaw sa mu égalisé 75e minute ak kii di satu Malado jallo moom mi dugaloon sax ci match bu njëkk bi bii bi may ndam Sénégal. mu doon fierté ci ñoom suñu sukkandikoo ci capitaine bi di Amara Diouf. waaw kontaan nañ trop si lu ñu recevoir si fii si palais de la république euh, di wax ni yombul ñu recevoir équipe euh, boo gañewu diñ na seen recevoir kontaan nañ trop si loolu parcours bi il fallait que ñu def ko parce que euh, sunu mag yëpp jaar nañ fi léegi ñun rek ñoo si defoon liggéey nañ lu nga xam ni euh, waroon nañ ko mën a am te yàlla def nañ ñu am ko waaw personnellement sa performance yi yow nga ko jugé si samay doole pour ma mën a am performance individuelle bu ma am champion d'Afrique Yaya Jammeh jàpp ni lu ñu mérité la ndax liggéey bi ñu def booba léegi. parce que si mbopp nañ ko jël moom gëmoo nañ si mbopp trop même entraînement lay commencé avant ñu dem mas waaw gëmoo nañ si kontaan nañ euh, nga ñëw sa président recevoir la nga xamante ne musul musul musul am si yow. waaw li ñu yëg si yaram ñun rek ñoo ko xam waaw ñoo indi remercier yëpp di suñu parents ñëpp waaw kontaan nañ trop si yéen seen soutien tamit di ngeen ñu taxaw bu baax kontaan si yéen. incha allah ngeen a dem euh, coupe du monde euh, nan ngeen di envisager coupe du monde non dañ rek bu ñu demee comme ni def kaan dañuy def bu ñu jàpp mu wàccee la rek comme daal. Serigne Diouf nekk gardien bi gën a ràññeeku ci compétition bi moo it mbégte la am ci ndam bi ñu. liggéey nañ lu bëri tubaab jalaaw pour lii nii parce man fu may dem rek damay xool loo xam ne pour góol la may ma visé ko te bu ma doon dem compétition dama ne dama bëgg a jël meilleur gardien ma dem yàlla may moo. champion d'Afrique yi dinañ wéyal liggéey bi ci seeni académie ak seeni club laata kon ñuy dem ci coupe du monde bi ñu jàpp ci weeru novembre bi di ñëw. wàllu basketball ak basketball Africa League final ba ca Rwanda lay xewee ca Kigali démb yi nekk ci AS Douane dana wane xarkanam bu ñëpp rafet ndax dañoo duma ci quart de finale bi ci lu amul genn layam layam yi bu euh, Ferroviaro euh, juróom-ñeent fukk ak ñett la sénégalais am ci poñ ñooñee am juróom-ñaar fukk ak ñett ci poñ muy ñaar fekk poñ yu leen texali Sénégal daal di kon qualifié noonu ci demi-finale war a dajanteeg euh, geneen équipe bu ñëpp bàyyi xel ci continant bi muy Petro Luanda ci geneen demi-finale gi Stade Malien. moo cay jongante ak waa Al Ahli nu jeexal ak wàllu bëre olympique ci championnat dafa ñu doon ak xewal ca réew Tunisie ak euh, beach wrestling euh, Sénégal am na ca médaille ndax bu ñu xoolee ci compétition par équipe bi moo jël p ndax am na ñetti médaille ci or ñetti médaille ci euh, wàllu argent ak ñeenti médaille ci wàllu bronze xale sénégalais yi ak nañu àndaloon ci wàllu CNG ñu ngi leen di xaaran yi tey ji ci bu 10 heures tegalee ci bu 11 heures jotee ci aéroport euh, Blaise Diagne bu jas ngir ñibbisi indaale euh, seeni médaille li ma jaaxale ay seen léegi mooy ku am ndam mhm. dem pale jël ay millions <laughs> waaw léegi ñaara mën a ne <laughs> def lu rëy am nun nu fexe nekk sëriñu équipe nationale yi pour encaisser ci xaalis bi ah mbaa nu créer équipe nationale dem compétition gagné ma ki équipe nationale wax. Ah, classement bi du yomb de Sénégal ñi pay wax. alaaj bu ñu demee ah, ah. jàmbaar la dinañ ci génn de pourtant man ak yow rek ñu dem ak Babacar Fall. <laughs> bàyyi nga egg président ne la kenn du euh, fay wax bàyyi jëf acca dellu leen ngeen jëfi. ah mais wax jëf la di pourtant li ñuy def nii jëf la di alaaj. jërëjëf Malal. <laughs> pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. jërëjëf euh, Malal li moo tax Oustaz Alioune Sall di ñaan Sénégalais yi ñu am ci lu bari xaalis boobu suñuy poos ndax xel yi gën a dal chronique culture bi ñu ànd ak Fama Dione. Euh, jërë ngeen jëf mbokk yi dañuy tàmbale ak wàllum graffiti maison de la culture du Tasek dalal na cérémonie lancement euh, festival bu njëkk bu njëgleel wàllum graffiti fii ci